ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu dalal daal leen ci xibaar tey nag suñu jàngatu tey bi mooy li nga xamante ne si moom moo ñeel procès Prodac bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang euh, question bi ñëpp di posé wu nag mooy ndax justice bi nga xam ne ñu bëree bëri jàpp nañ ne euh, dafa jéngkat jëme ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo di euh, pouvoir bi waaye itam di dal ci li nga xam ne moom moo di opposition bi rawatina kii di président Ousmane Sonko ci jamono ju nekk eh, ginnaaw loolu nag ku nekk xam na ne kii di président Ousmane Sonko dafa war a am eh, li nga xam si ne eh, moom mooy ab projet bu dox digganteem ak Mame Mbaye Niang waaye itam ñu daal di war a dem fa nga xam si ne di cour d'appel ba nga xam ne kii di procureur Amady Diouf moom moo ko war a jugé ku nekk xam na ne position bi nga xam ne kii di Amady Diouf yàgg na koo jël ci lu ñeel. mbir mbiri Ousmane Sonko euh, loolu nag question bi nga xam ne moom la ñu posé wu mooy est-ce que kat ñii di sénégalais yi euh, dañoo war a toog naan na yoon def euh, liggéeyam loolu nag nekk na loo xam ne. ci jamono bi ñu nekk téem rek moom la nit ñi di posé ba xam euh, lii di sénégalais yi ñoom ñoo war a def li nga xamante ne euh, moom moo di faire xam ne kat euh, kii di Ousmane Sonko ñoom ñoo ko war a si waaye itam nekkul ne lii di nguurug Macky Sall jamono jii kat ñoom ñooy def li nga xamante ne si ne Euh, ñoom ñooy euh, coordonné yi la mbir waaye itam euh, nekkul ne it président Macky Sall moom mooy coordonné ay mbiram waaye itam di xool emploi de taawam waaye itam di xool fi nga xamante ne si ne moom lay jëmee lii di justice bi waaye itam jàpp nañ ne dafa nekk loo xam ne ñii di sénégalais yi ñoom ñoo war a jug taxaw temm ñu daal di def li nga xamante ne si ne moom moo méngoog lii di dëgg ndaxte kat kii di Mame Mbaye Niang buñ fàttalikoo li nga xamante ne xamle woon na ko kat moom moo di dafa bëgg kat lii di justice daal di seetal deram waaye itam jamono bii kat ku nekk xam na ne kii di Mame Mbaye Niang dafa daal di dugal li nga xam ne Euh, moom moo di ab appel ba ñu war koo daal di jugé waat euh, lu yo ci 17 euh, avril bi nga xam ne moom la ñu dëgmal 17 avril boobu nag est-ce que ñii di sénégalais yi dañoo war a toog di xaar décision boo xam ne ci yoon lay jóge waaye itam ñu bëree bëri jàpp nañ ne ci mbiri Ousmane Sonko décision bi war a jugee ci lii di justice ñii di waa APR daal nañ koy xam ba noppi loolu nag mi nga wut ak li nga xam ne moom moo di yoon boo xamante ne si dafa sérieux waaye itam Euh, kii di Ousmane sunko buñ ko sàkkalee pexe euh, day mel ne kat kii di président ki sàll dafa jël lii di décision teg ko ci décision bi lenn ci Sénégal yi nga xam ne euh, dañoo adhéré wu ci Pastef waaye itam daal di yaakaar li nga xam ne moom moo di changement ci jamono bu nekk loolu nag day jar kat ku nekk daal ci taxaw seetlu ndax kat ku nekk xam na ne. Euh, lii di dossier Prodac bi nga xam ne moo dox ci diggante kii di Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko euh, nekkatut loo xamante ne si ne kii di Mame Mbaye dafa bëgg a seetal boppam waaye politique def cee dugg bu baax a baax euh, wante itam ak annulé li nga xam si moo di candidature bu Ousmane Sonko fexekat ba nangu ay droit am loolu nag moom moo xew ci jamono ji waaye itam bii la dossier nekkatut dossier judiciaire waaye itam dossier politique la euh, dossier politique nag ñu bëree bëri dañoo jàpp ne politique moo koy réglé te ku nekk xam na ne lii di politique ci penc mi lay war a doon loolu nag nekk loo xam ne mën nañu wax ne nekkatut diggante justice ak Ousmane Sonko waaye Euh, Ousmane Sonko la ak ay partisans ak Macky Sall ak ay partisans loolu nag nekk loo xam ne euh, nekkatut wàll yoon ci jamono bi waaye itam gis nañ nekkat bépp opposant boo xam ne euh, daal nay dem ci yoon ci jamono ji dafay ñàkk mën nañ cee jël lu mel ne procès bi nga xam ne doxoon na ci diggante kii di Amy ñibbi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député Yewwi Askan Wi loolu nag toujours moom mooy répété wu waaye itam kii di Ousmane sunk daal liñ ci mën a jàpp rek moo di Euh, justice kat bu fekkoonte ne ab euh, paaka la mën nañ ne kat paaka bi bi nga xamante ne si ne euh, dañ ko daal di daas ngir kii di Ousmane Sonko loolu nag ñii di partisan yi Ousmane ak ñi nga xamante ne si ne dañoo yaakaar changement ñoom ñoo ci war a daal di taxaw. waaye itam mu jaral leen li nga xam ne moom la jaral ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi ndax kat kii di Mame Euh, ñu bëree bëri dañoo jàppale ni nga xam ne mi ngi koy doxalee jamono ji yàpp sénégalais yi moom moo ko waral waaye itam euh, jàpp dafa fare ci nguur ba nga xam ne si lii di nguur moo koy protéger moo waral euh, muy def nag sudul noonu ak ki nga xamante ne si ne moom moo di procureur nga xamante ne si ne it moom it dafa daal di jàppale kii di mambay ñaa ci appel bi nga xamante ne siine ne mi ngi koy def loolu nag nekk loo xam ne guleet ñi di ko gis ci justice wala mbokk ñu dem joxe dig dajee ci yeneen xibaar benn wax na ngeen abonné te de notification bi pour bépp vidéo buñ dugal ngeen bokk ñi koy njëkk a jot